waaw onze bila bismillah ina wani yàlla jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul rë jërëjëfe teedi Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni zahiran wa batinan gàcce ngalaama borom daaru Noreyni gannaaw bañ sante yàlla julli si yonent bi di sant suñuy ñaari waajur du nuyu waa parcelle 1 ba 26 di jiital suñu père beer Birame Ndiaye di ko ñaanal gudd fan ak wér. di nuyu waa Bende bu baax a baax a baax a baax surtout fii may defee open presse bi di leen jégalu su ñu yëg ak lu ñu yëgul parce que dañu koy yombalal ñoom quoi lu ñu woote rek dañu si bàyyi te koñ bi xamoo ndax am na ku fi feebar xamoo waaw di leen jégalu bu baax a baax waaw di leen xam ne xamal ne xam ne sport la rek moo demee nii. waaw di leen jégalu wér-wér di sàkku si bëgg journaliste yi fi teew yëpp dañoo dagg seen yite ku si nekk mënoo nga am foo jëm nekk seen yite bopp. bàyyi say yite ñëwal ñu te bu dul woon ak yéen yaakaar naa ñu kenn xam si làmb kon gàcce ngaalaa maa leen ñaanal lu ngeen bëgg yéen a xam yàlla na suñu borom defal jaarama tey yëg-yëg bi lay laaj nga def open press kenn ku ne xam na ne bi neexul mhm. ñu tëdd ci kaso yi aussi tamit ñu génn parce que loolu jàmm jàmm tey mbooloo bi fàq wiisi la du ma ne bëri sax tey ñu dëkk parcelle ak fu waay nekk rek tey wiisi yëg-yëg bi waa yëg-yëg bi lenn la avant sax ñu ngi naan ñu ngi jaale ñi nga xamante ne li fi xewoon bi fan yi passé nga xam ne yaakaar naa ne feneen lañ ko doon séntu ba mu des suñu dëkk Sénégal lii ñuy def nit ñi ñun xamuñu ko te fii Sénégal dëkk yi dafa wuteeg yenn dëkk yu bari parce que fii dafa am ay kilifa diine am ay tànneef ñoo xamante ne ay doomu aadama mais yàlla moo leen tànn jiital leen kon ñooñu ku rusutul kenn nga rus kilifa diine fi nekk waaw di jaale ñi nga xamante ne ñoo fi jigéen di leen ñaanal suñu borom xaaral leen àjjana daw si ñi si suñu borom sàmm wéral leen ñi si dem kaso ñuy ñaan mu dawal yërmande parce que après doo jàpp ne kooku nga yëpp nga tëj parce que yaayam dootul toog papam dootul toog famille dootuñu toog waaw ñu dimbale gars yi ñu jàpp quoi ñu bàyyi leen ñu xam ne Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ñu ñëpp benn lañu parce mm. que maam Réma Sey di béggee waa Grand Mirine bu baax a baax a baax a baax a baax waa Grand Yoff di leen béggee Cambérène ñëpp di leen nuyu quoi ñëpp benn la waaw c'est la famille noonu la demee waaw ñu jëm ci takkusaan gi bu ci sa diggante ak alliance bu rëb bu yàgg ngeen war a na bëre a ngi doog a bëre te nee na combat bi moom wax rek nga si am. waaw nee na waa parcelle moom ay ay noosam la. yaakaar naa moom liñ naan lu mu naan ay wax rek laa si am dañoo si wax ku waaw moo tax ñu doon wax. toolof dafa ne kuy nelaw bañ gome la boo yeewoo bul bañ ko la passé moom loolu ko dal maanaam day xoole ba may wax si ko kon moom loolu la. waaw si wax lañ toll moo tax ñu doon wax ñun kenn sax ay wax yu bari nii nekkuñ sax si yooyu wax la. Hmm. noonu la bu demee si jëf yi ñëpp xam nañ ne maa man lamb sama noos la xeex xulo xeex xeex rayanteeg lépp man sama noos la loolu làmb moo gën a yomb si lu ñuy dund ñun ba ci bisu dimanche bi loolu lu yomb la incha allah Baye Fall bi ngay bëre du ma ne Baye Fall sax ñaari Baye Fall yi mais ndaanaan bi mu doon si làmb ak adversaire yi mu daan ay wës jàmbaar ay bekaay daan ay champion ci biir làmb bul ne ma li ma fi baal ba ma dem farba est-ce que jëloo risque yow kii waaw man gaw ma risque man li may dund man li may dund moo gën a métti làmb muy bàyyi faal sart yi ma tegal moo gën a métti làmb làmb méttiwul war a sëñ tubaab udu kaa xaas la nii rek pour teral waajur la ndaanaan la maa ngi koy dégg nag nawloowu mais bu lëndee fu ma romb kaboo bi la may woowee incha allah ah, xeex bi dama man yéen yaakaar naa ne nit du nax boobam ba du yenu mooy xam ne lu boobu attan te ñun naxante wuñ yéen ñëpp seetaan ngeen samay làmb man musuma taxaw di xaar mbër du ma mbër xaw ma loolu parce que maam maree ma say alias biram jàmbaar la champion la mais fort la ko waa moom man pili fort lay bëreel loolu lay xam kenn du ko gis di jël pili pili fort kenn du ko gis di jël fort agro fort bu wér a wér pili ngi fa mu nekkoon waaw pili fort xam nga mais est nga bëreeloon ay ñoom booy Diouf rek ay réparé alliance benn moo gën a méttee gum ñëpp ñu ma war am parce que ñooñu daan naa leen bañ féete boor moom daanaguma ko kon moo gën a métti dañ koy jox cër jox ko li moom mais man li bañ laay def bu arbitre dama lay diriger force nga bëgg nga bañ dama lay diriger force bu soobee yàlla suñu borom bu soobee subhaanahu wa taala bi rabbi ansi dama koy diriger. ñaata minutes. Ah, man man tey lañ may wooy amet 5 secondes laa tuddoon ci mbabat. cinq secondes. dara tudd Anaconda ci lamb. Moussa Papa am bisul doo fay. cinq secondes yi naa ñëw. waaw moom mooy ñëw sax incha allah Alliance Birame cinq secondes man yabuma sama si bëre bëre Alliance Birame minute fi ma teg sama bët la wallahi fi ma teg sama bët waaw moo tax yow xamu ko xamul mais xam nga man fii du sama place ci lamb lamb moo tëral rek te père Birame Ndiaye dafa am yaakaar ci man taxaw si micro ñëpp taxaw mu ne booy fii day nekk champion dama ko wax si Balla Gaye feeñul si télé ba mu koy wax nee na ba mu koy si Modou Lo papam la ko wax ko si télé man si télé la ko kon man bu dul dara war naa xool Père Birame Ndiaye li muy des si man combat bi fajar la yeewu day ñëw terrain ba léegi day ñëw terrain ndax man di ma surveiller di ma xool ah, kon kooku kon kooku naas barke Serigne Touba aw ma fayam di ko ñaanal gudd fan di wax ko mu bëgg rek na ma ñaanalal Père Birame Ndiaye mu gudd maanaam lu mu bëgg ndeysaan man dama koy xool sama yaram daw war ma ko sant maanaam dama koy ñaanal parce que dafa sonn si man barke maam Marème Seye di ko ñaanal bu wér a wér fan di ko wax lu muy séntu si man barke Cheikh Ousmane Mbacke Noreyni ah di ñaan Baye subhaanahu wa taala bi rabbi si dafal ñu ko Baye war na maam Marème Seye dara boobu waa Sow bi ma siy wax mooy ma Elhadj Birame dañoo sas waaw parce que gi ñuy bëreel dara boobu ñëpp xam nañ ko ci jom xam ko ci fulla xam ko ci fayda nekkul ci ay violence waaw ku am teggin la grand bu am teggin la man sama dama koy roy si jàmbaar la ñuy bëre waaw di la wax nga la alliance biram ni oh. ma yaakaar si yow su nekkee mu ngi fa combat bi dana xaw ma ndax mu ngi nag waaw ma li ma yaakaar ne yaa liggéey nga ko li nga tallaxu fii yëpp si lamb ci micro lépp ah boo ko dëgalee dinañ bëre waaw lamb ju neex daal gëm naa ne lamb ji moo deex saison parce que ndaanaan nga waaw balaa maa woo di woo sama mbokk séeréer yi di wax bogale séeréer mais sim naa nun xanaa nun ndam taama nu combat ne mi fi alliance biram a baax a baax ñaanaa ma a baax xooyaa waa fu waa Fatick Djilor Diofior Dionewar Bawol Njabaay Laañaar fop may xooya nun nu damtaama nu combat mi fo alliance biram waaw ah, wo xooya waa Njongoloor aussi fu waa Bawol fop may xooya nun i eh, waa Boyar Diofior Fimlar waa Morloj Saalum ñëpp moo weesoo foofu di woo waa Grand F waa Grand F maa ngi Sansala Bopin déglu leen ma ñëw baaj wala ma defee na may juum waaw moto naa lépp déglu leen rek di woo waa Grand waa Sanzala Open waa Parcelles maa leen di woo bu baax a baax a baax waa zéro heure man awma kenn ku dul ñoom di leen wax xoolal ñu gën a jàpp rek waaw naa leen fay ba bis leen barke maam ré ba sëy géem beeg ñëpp nañ toog déglu ma rek ñëpp laay fay incha allah di woo waa Grand Médine baax waaw di wax bu Grand Médine benn comme ni ma ko doon waxee bi baax benn la waaw waaw diggante maanaam Grand Médine benn fi ni fer xaju fa di woo waa Bende bu baax a baax a baax di woo waa frontière di woo waa Mbayar gi di woo waa Cambérène bu baax a baax a baax di woo mafia yëpp daal ku lim jum waa Cité millionnaire maa leen di woo bu baax ñoom Issa maa leen di woo waa Jëppal Dergele waa Angle Mbari waa Rapa Dio ñëpp maa leen di woo waa Liberté 4 maa leen di woo di woo ministre de la jeunesse ministre de la jeunesse ñoo ngi koy woo mu ñëw jàppale si boolo gi moom mooy suñu ministre instant waaw di ko woo mu ñëw jàpp si bu wér a wér a wér ba Malick waaw père ba bu dul dara conseil ñi conseil dafa doy di ñaan yàlla guddal fanam wéral cëram Mansour Ba ñoo ngi koy woo bu baax a baax a baax si combat bi kii Aliou Darame maa ngi koy sant Aliou Darame mbër yëpp amel nañ ko cand maanaam ndeysaan day sonn man barke Cheikh Ousmane Nouré damay tëdd ci xalaat Aliou Darame jug entraînement ji war na maam réem see jàppale du xaalis quoi maanaam yëg nit mu day toog ba ay heure guddi guddi guddi jékki jël téléphone jëkkër ko woo ma maa ngi koy sant di ko ñaanal wér li muy séenu si ñun yàlla am lu kawe loolu barke maama say di masawu coono ñoom daam seen bégaay mbëri amoon combat ak garga seen journée bi fomb waaw yàlla na nekk lu gën si ñoom di masawu promoteur ak talfa ak ñëpp maa leen di masawu di ñaanal waaw waa jàmbaar tamit xam nga taw féex di ñaan Sénégal jàmm yàgg bi Cheikh Alassane Sène waaw borom jàmmi réew maa ngi koy woo bu baax a baax a baax a baax waaw di ak kanji maa ngi koy woo production maa ngi koy woo mu ñëw jàpp si combat bi hélas grand hélas maa ngi koy woo bu baax a baax ak grand max maa ngi koy woo Modou Gueye maa ngi koy woo bu baax borom maire West Foire maa mu ñëw jàpp si combat di woo di woo daa ba si rek laa mi dafa métti dama bëgg a duy stade bi barke Cheikh Modou Kara même loolu waaw di woo grand max Marie Louise Maram Diouf ñoo ngi koy woo Kéba Kanté ñoo ngi lay déglu booba wala yow waaw yow la rek la ñuy déglu di woo Go Faye les mu jàll waaw les go bi ñu ngi koy woo bu baax grand pend yëpp maa leen di woo di bëgg waa koñ bi di bëgg père gis bu baax a baax a baax suñu père ko wàccee boppam la Ibrahima Bana moo ñu may courant di leen di bëgg père Cissé tamit suñu papa la fii la dëkk di ko ñaanal taw féex waaw di wax borom Thiès borom Thiès borom Thiès ñetti yoon woo combat sa combat la borom Thiès combat bi sa combat la Sidi Wakam waaw